yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay la la sanga seene yaaram nga yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay lay bay lay e la la sene yaram nga yaram nga Muhammadu lay yaram nga lay lay bay lay e la la lay yaram nga yaram nga Muhammadu lay yaram nga lay lay bay lay e la seene yaaram nga nga Muhammadu lay nga lay lay lay e, la la be lay lay yaaram lay lay bay lay la seene Muhammadu lay haram nga lay lay bay lay la la nga be lay haram nga yaram nga Muhammadu lay yaram nga lay lay bay lay Muhammadu lay aram nga lay lay bay lay sangabe lay aram nga yaram nga Muhammadu lay aram nga lay lay bay lay la la sangasene yaram nga yaram nga Muhammadu lay aram nga lay lay bay lay Muhammadu lay bay lay la nga lay bay lay la la Muhammadu nga laay laay bay laay nga be laay nga Muhammadu lay aram nga lay lay bay lay la nga be lay yaram nga yaram nga Muhammadu lay yaram nga lay lay bay lay la sanga sene yaaram nga yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay la la nga be lay yaaram nga yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay eh, la la sanga sene yaaram nga yaaram nga lay aram nga lay lay bay lay lay sanga be lay aram nga yaram nga Muhammadu lay yaram nga lay lay bay lay lay sanga seene yaram nga yaram nga Muhammadu lay yaram nga lay lay bay lay na ko ñëpp wax na ko ñëpp yaaram nga yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay nga be lay yaaram nga yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay la la sanga seene yaaram nga yaaram nga Muhammadu lay yaaram nga lay lay bay lay borom jamono Baay Abdoulaye Muhammadu lay yaaram nga lay borom jamono Baay Abdoulaye bay lay la la sanga seene borom jamano baay Abdoulaay laay yaay baay laay laala nga beelaay yaa rab yaa rab nga borom jamano baay Abdoulaay laay baay laay laala eh, sanga seene yaa rab borom jamano baay Abdoulaye yaay baay laay laay sanga bee laay yaaram nga yaaram nga borom jamano baay Abdoulaye yaay baay laay laay sanga seene yaaram nga yaaram nga borom jamano baay Abdoulaye yaay baay laay laay sanga bee laay yaaram nga yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye yaay baay laay laay sanga seene yaay borom jamano baay Abdoulaye la yaay baay laay la la nga be laay yaa rab nga yaa rab nga borom jamano baay Abdoulaye la yaay baay laay la la sanga seene yaa rab nga yaa rab nga xorom jamano baay Abdoulaye la yaay baay laay la nga belay yaaram nga yaaram nga borom jamano baay Abdoulaye la yaay baay laay la la nga seene yaaram nga yaaram nga borom jamano baay Abdoulaye la yaay baay laay eh, la la nga be laay yaaram nga yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye la yaay baay laay eh, la borom jamano baay Abdoulaye yaay baay laay la la nga be nga yaaram nga borom jamano baay Abdoulaye yaay baay laay eh, la la sanga yaaram yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye la yaay baay laay la la nga be laay yaaram nga yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye yaay yaay baay laay la la borom jamano baay Abdoulaye laay yaay baay laay laay laay waaye na ko ñëpp wax na ko ñëpp wax te boole ko loxo yi ci kaw na ko ñëpp wax yaay baay laay eh, laay sanga seene yaaram ak yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye laay yaay baay laay eh, laay sanga bi laay yaaram nga yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye yaay baay laay eh, laay sanga seene yaay borom jamano baay Abdoulaye yaay baay laay laala eh, nga be laay yaaram nga yaaram baay laay yaay baay eh, la borom jamono baay Abdoulaye laay yaay baay laay eh, nabi laay yaaram nga yaaram yaaram nga yaaram nga borom jamono baay Abdoulaye laay yaay baay laay laay yaaram la borom jamono baay Abdoulaye la baay la yaakaar noonu lay la eh, sanga seene gëm nanu la gëm nanu la lay yaakaar lay baay gëm Baay Laay ana ñu gëm Baay Laay ana ñu gëm Baay Laay yaakaar nanu la laay Baay Laay la la sanga seene gëm nanu la gëm nanu la Baay Laay yaakaar nanu la la laay Baay Laay la la sanga be laay gëm nanu la gëm lay yaa kaar nanu laalaa lay eh. bay lay laalaa sanga seene gëm nanu la gëm nanu la bay lay yaa kaar nanu laalaa lay bay lay eh, laalaa sanga bee lay gëm nanu la gëm nanu la bay lay yaa kaar nanu laalaa lay bay lay la sa nga seene gëm nanu la gëm gëm nanu la gëm bay lay yaakaar nanu gëm nanu la bay lay yaakaar nanu la la lay bay lay e, la la la bay lay gëm nanu la gëm nanu la bay lay yaakaar nanu la e, la lay bay lay e, la la sangal seene waa Makka ak waa Medina

waa mi dina boo fa dellu woon dunu bañ sëy leen yow bay lay laala sangal teene waa Makka waa mi dina boo fa dellu woon dunu bañ sëy leen yow bay lay laala nga bee lay waa Makka waa mi dina boo fa dellu woon dunu bañ sëy leen yow bay lay la sa nga seene waa Makka waa Medina boo fa dellu woon dunu bañ say leer waa Makka waa Medina boo fa dellu woon dunu bañ say leer yow waa Medina boo fa dellu woon du nu bañ say leer yow baay laay laala nga bee laay waa Makkat waa Medina boo fa dellu sa nga seene waa Makkat waa Medina tampel nan rowala isa yonen la la la nga belay wa makkat wa midina tampel nan rowala isa yonen la Isa yonen la la la belay wa Makka wa Madina tampil nu nuro wala Isa yonen la la la sanga seene jàng nanu ko gis nanu ko Isa julle naga taw bala lay bay lay e, la la nanu ko gis nanu ko isaaju leen po saw balaay lay bay lay la la sanga seene jàng nanu ko gis nanu ko isaaju leen naka saw balaay lay bay lay la la sanga bee lay jàng nanu ko gis way saaju leen ko saw balaay lay bay lay yonen nga bay lay yonen nga lay lay yonen nga yonen nga ay way yonen nga yonen nga bay lay yonen nga lay lay yonen nga yonen nga bay la yonen nga lay lay yonen nga yonen nga ay waay yonen nga yonen nga ma nga ñëpp wax fii bay la yonen nga lay lay nan nga ah, lay lay baay lay mooy démb mooy tey na ko ñëpp wax yónneen nga yónneen nga bàyyi laa

nen nga laay laay wax ku gëm Seydina Limaam waxal baat naan nag loxo yi naan nag loxo nen nga lay lay yonen nga yonen nga ay waay yonen nga yonen nga bay lay yonen nga lay lay yonen nga yonen nga waaw waaw yonen nga yonen nga bay lay nan nga nan nga nen nga laay laay jigéen ñi nga bàyyi nga laay laay nga yonen nen nga maam laay laay yónneen bu jur yónneen daan am waaye yombul ñaari jant yu fenk baay bu àndal doom la nen nga maam lay lay lala yonen da yonen da ay waay yonen da yonen da bay la yonen da lay lay lala yonen da yonen da waaw waaw yonen da yonen da bay la nan nga maam laay laay laay laay jur yonen daana am waaye yombul ñaari jant yu fenk bay waan ak doom janta nga janta nga janta nga janta nga waaw waaw janta nga janta nga ruwa lay saay wer wer lay lay jantanga jantanga musraka ya ummati musraka ya watani qad qassaka allahu samsa ad-din wal khamar canga falay isaay weer we maam lay lay wet nanu wet nanu Seydi Abdoulaye ñibbi na Abdoulaye ñibbi na laay laay ñibbi naa ñoo ngi la la ñu ngi ñaan dellu pour la baax lay lay lay bay laa ya ba la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah waay yëngu yëngu yëngu yëngu ku yëkki sa loxo yàlla na yàlla far say bàkkaar loxo ci kaw nii lim juri waay Abdoulaye a baax laay laay laay laay Abdoulaye a baax laay laay laay laay barke baay laay